ndeysaan final baa ngi noonu diggante Ibou Ndiaye ak Waly bu Diofior moo ñu war gannaaw ak Waly bu Simal ñu leen di wax nag tout droit Fatick samedi le 4 février ñun wax la TV ñu ko hôtel la bu jure tegal oto ak 500000 francs animation mbay ak lu mu moom lay doon waaw bu leen la bu film la bi 30 nag lañ teg. vendredi lay commencé le 13 jeex lundi le 16 Ibou Ndiaye Waly Simal di bëgg waa Diofior di bëgg waa Simal Ibou Ndiaye ak Waly njom na fuujil na naanum foo de moo ne sax man neera tooñeel amit arrêté na lamb ji daa am ñu dugg si gi sifle waat naa ndeysaan sama tonton Souley Bass Diop yor bëgg naa ko borom France Abdou Ngoni la gën a si campagne ndaw ba li maa ko siyaar Abdou Aziz ñaan le frère de Wali maa ngi lay bëggee Abdourahmane Ndaw Simal bëgg naa ko di bëgg waa Kobangoy sama dëkk Kobangoy waa Kobangoy doo Kobangoy séeréer sama grand bu baax Mbaye Kizé maa ngi koy siyaar Ndof Gueye yaa ngi si biir Mamadou Dieng wala loo bu njool maa lay bëggee ñoom Mbacke Paamu Ndaw ñoom Cheikh Ndiaw Faye maa leen di siyaar di seen baax yaay grand Souley waa Ndiol di famille bu Pama koy naa leen yéen ñëpp ñoom Seydou Ndiaye Mbodj Ndiaye Ibou Ndiaye Waly Thiam wala Waly bu Simal. ci Djilor Pape Momar ndeysaan bëgg naa ko ndeysaan le docteur Samba Faye maa ko siyaar bu baax a baax sama grand bu baax bàcc ndeysaan le porte parole parti république des valeurs maa koy bëggee moom Samba sama tonton Doudou Niane ca Ndiédiène maa koy siar di bëgg waa Ndiédiène le docteur Diomaye Dieng le directeur général Dio bëgg naa ko su ma waxee sama xel dem ci suñu papa Bouba Jombo bi fi bàyyeekoo yàggul ya ñu ngi ñaan yàlla xare aljana di ko jaale ñoom Mamadou Dione ñoom Ibrahima Dione awam ñu Jombo fop ndeysaan Birame Diouf Simon le grand champion bëgg naa ko Ousmane Ngor Diouf wala Ngor maa ngi lay bëggee Mamadou Diagne sama grand Serigne Amiet maa ngi lay bëggee Yaxaab siyaar naa la Ibou Ndiaye Waly noo gisee final bi. Lamine final bi ala daw ma ne Lamine. ndeysaan diggante Diofior la ak Simal. derby la. loolu mësul neex Lamine. munul yomb. bilaay walaay. li muy borowaale moo bëri. waaw waaw dafa yàgg de. ak wuuraakay ne. roogay nga nga jàmbaar de la ak teel. Pape merdesan, ndeysaan Pape Momar siyaar naa ko ak Takasi bu Djilor Takasi le grand champion waaye nabu nga ma coomi Ndiak Sarr nabu nga ma coomi ndeysaan waaw waaw waaye mama Aïssa Ndiaye fa la ñuy kan du borom la arbitre ñaari champion bi sub la waat na de Angura Gaindé Tero Gaindé nga Jambar nan antel Jambar a feeña cinq minutes pause dem nañ ñuy taxaw ba ñëwaat bi sub la waat na ndeysaan ma fiya fe Dubaay comme nañ lay tan bëgg amoon nun Wali da mel ne am na dugg bi wa jof yori ñek dubai ñam Matar Senghor le grand champion moom la mel ndagu kor walif wala Ousmane Ndamu Faye Mansour sar Malal Sar, Ngor Seban ñoom Omar minas desaan ñom diram Diouf Mamadou Ndao wala Mamoun ñin Cheikh ñin Serigne Ndeye Ndour naa ko di bëgg Ndeye sama grande sœur wala ko accéléré bu ñaaw bali wali wala ñu dox ci kawam bal bi neex na Wally Simbale bu Njaay kati dida biya mangu makor mama sare wa mana njalae quel final Kice, diktatör Kice, Kicin. Ey vay! Kicin. Kice, Kice, Kice, Kice, Kicin. Ibu Ndiaye Wally diggante Diofior ak Simal nee naa leen mënul yomb utanu la rokku ndeere lenda caate cosaan dik Simal Foudaye Diofior Foudaye ndeysaan waagee yóbbu Wally Simal ak waa Diofior yi ay derbi la kor mbisi ne jeenele ta jam ne tewate ko parce que ça date de suite Wally bërel Ibou Ndiaye des ci temps li ci des jeexee da ngay ñàkk Ibou Ndiaye day gérer temps bi c'est à Wally de faire des actions et saa yi avantage pour Ibou Ndiaye Ali Simal fii ci Djilor ndeysaan di si profité di bëgg waa si club Lamyn TV Saliou Sarr wala potisal, Sall doomu Koba Ngoy bi di kontaan si yow gis na potisal taxawaay Petit Sall bëgg sa grand frère Samba Sarr le professeur de PS envoyé grand Samba bëgg naa aca la lamb ja